Nasrul sëriñ moo te zabal te mi ngi daaru kenn la moo fi tuur ci ay jikkoom yoo xam ne war di nekk di ko rëy ci moom ndax mel ni lu jafe la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen bokk yi ñuy seetaan noo ngi fas yéene ànd ak yéen ngir won leen waa daarul moxti njabootu borom Darul moxti ni ñu tënkoo ci ndigalul njabootuk Serigne Touba ndax màggalug Daaru Muxti yi Serigne Modou Moustapha moo joxe woon bis ba bi Serigne Falilou Mbacké ñëwee soppikoo ko ñu wéyal ci loola Cheikh Abdoul Khoudous Mbacké waxoon ni bu ñu ne woon bàyyi leen ko sax ñu bàyyi ko kon seen ndigal rek lañuy ñuy déglu loola itam ci la Serigne Cheikh Khady Mbacké jaaroon Serigne Abbas Mbacké mii fi nekk itam ci loolu la jaar Serigne Abbas nag ndigal yooyu nga xamanteni ci la ay magam tënku woon moo tax bi nga xamanteni bi bii Serigne Mountakha Mbacké joxe na ndigal ngir ñu màggale ko kenn ku nekk fa nga nekk ndax tawat yi nga xamanteni bi moo lëmbaaje e, e, réew mi loolu moo tax waa Daaru kenn ku nekk sa kër nga ko màggale bokk yi màggaluk Mooti nii la daan mel ci mbooloo nu gisa bokk jaaraama seexoo moo gor lu njëkk te sasin gas lu buruuji la sas sanc ba moo di am sasin taarix a ngi bab dëgg la waaye bi nga xamante ni jot nañu ndigalul ni bu kenn ñëw takkusaan yi màggalug Daaru Muxti ren nii la mel kenn génnul dëkk bi mel ni dara xew fi te dara waralu ko lu may dëkk ndigal luy bàyyi ko ci njabootu Serigne Touba kon noo ngi ñaan ci dara ji Serigne Touba mu tukki woon ak borom daaru moom ci bi mu bàyyi woon njaboot gi lii yàlla moom fi amati ni su caabaan bi jàll na yàlla na ànd ak tawat jii di coronavirus dem ba kenn dootu ko dégg fenn ci àdduna at ya des la toj koso ak lu mbi dawal ta koso يقول مدارس تدوغا ينتو بكوبل قابل الله دار السلام واجوك بكام سلام آمين الجيب لنا نكام خمنا سباي سيدنا لا فكل نكير نقر لفت أقدم دلول بل لفسر بغاني كدل فدل وستي لولي لفجاك كما سنو أفو جيجي مدار لنغو جيجي لالي وطل طول بجيجي نالا دكال في بيلا